xam sa démb xam sa tey di waxtaan wu leen Goethe Institut may ànd ci ak Archives nationales du Sénégal ak it Kër Leyti maison de l'oralité et du patrimoine àdduna yàgg na waaye ëllëg ci démb lay jóge déglu leen ma may ma nopp ma nettali leen jaar-jaaru Sénégal bu rafet bii sunu réew mii may leen ma nopp ma ànd ak ñu tukki ci jëf ju mag ju réew mi may leen ma nopp ñu dundalaat sunu xel ak sunu fàttaliku ñun doom yi fàttaliku ay doomam di góor di jigéen may leen ma nopp ñu wax ci ñi nga xam ne seen jëf rafet na ba nettali bi rafet may leen ma nopp ndax sunu taarix dafa rafet te jar a xam may leen ma nopp seen noppi xol nag laa soxla ngir ma ànd ak yéen ba ci suñ biir xolu démb may leen ma nopp ngir ñu mën a dund suñu tey may leen ma nopp ngir ñu mën a waajal suñu ëllëg ñun ñooy taarix ndax xam ngeen ne bi senegal moomaatee boppam ba léegi di atum 1960 ñeent njiitu réew rek la amagun Léopold Sédar Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade ak Macky Sall. leen ma xamale leen ak ñoom maa la ko wax ki njëkk jiite réew mi bi nu moomaatee sunu bopp ginnaaw bi fi tubaab bi duggee mooy Léopold Sédar Senghor. moom nag mu ngi juddu juróom-ñeenti fan ci weeru octobre ci atum 1906 ca Joal ma nga jànge njàngam mu njëkk ca daaray kër jàngu bi nekk Ngazobil ba mu fa jógee nag la dem ci école diggu doom bi nu tuddee Liberman nekk fii ca Dakar ba mu amee baccalauréat am nag ca 1928 fala Senghor tàbbee dem France ba mu jógee France nag ma nga nekkoon ci lycée bu nu tuddee Louis la Grand jóge fa nag dem ca école bu mag ba université bu mag ba di Sorbonne foofa nag la amee licence ci njàngum làkk yu yàgg ya nag mu am diplôme bi ñu tuddee diplôme d'études supérieures nga xam ne moo ko may mu mën a liggéey Senghor nag daal di dugg ci larme bi waaye bi mu génnee ci larme bi ci la dooree nag nekk professeur di jàngale làkk yi di latin ak grec ca lycée bu ñu tuddee lycée Descartes ca Tours ca France loola 1935 la waaye nag ginnaaw ga dafa góor góorlu ba am agrégation nga xam ne mooy firndeel sa xarañteef waaye li Senghor di jàngale lépp mi ngi jàng di jàng nag làkki réew yi nit ñu ñuul ñi ca école bu ñu tuddee école pratique des hautes études ci institut bi ñu tuddee institut d'ethnologie bi nekk Paris. waaye nag bi ñaareelu geeru àdduna bépp amee 1939 dañ ko dugal ci l'armée bi mu dem xeexi ca la ko almaa yi jàppee tëj ko kaso mu toog fa nag di bind ay taalif ba mu woppee nag 1942 ñu yaa di koy yeewi bàyyi ko Senghor nag. door bi guerre bi jeexee nekkaat jàngalekat atum 1944 nag mu nekk professeur di jàngale làkk Afrique ca école boo tudd école nationale bu France d'outre-mer waaye nag loolu lépp Senghor mi ngi liggéey di bind thèse de doctorat bi nga xam ne mi ngi ko euh, tuddee woon li nga xam ne moom la ñuy xàmmee baatu yóbbaale yi ci làkki Sénégal ak Guinée di séeréer di pël di wolof di joola waaye nag mu dugal ci benn thèse boo xam ne da ko cee sofaale muy taalif bu kenn bindut buy jaar ci làmmiñ ca Joal ak Fadiouth. bi mu ñëwee nag 1945 ci vacances yi Senghor ñëw biir Sénégal di gëstu ca la daje ak maître Lamine Gueye boobu moom mu jiite SFIO nga xam ne nag moo ko moo toogal fii France di section bi nga xam ne internationale ouvrière ca la bokk. kooka nag daa di fexe ba Senghor dugg ci politique bi Senghor duggee ci politique nag ñu daal di koy fal député Sénégal ci assemblée nationale u France ba élection législative yi jeexee ca octobre ba waaye 1948 moom ca la sos parti boppam di bloc démocratique sénégalais BDS li may wax ni Baye Mansour Mbaye man na koo seede waaye gis ngeen Senghor 1951 ñu falaat ko 1956 mu dàbbali waaye nag bu leen fàtte ne Senghor nekkoon na maire Thiès 1956 nekkoon na ministre conseiller gouvernement république France 1959 Senghor fal nan ko 5 septembre 1960 président de la république du Sénégal mu daal di toog nag bind hymne national bii ngeen di dégg tey bàkku réew mi. kon nag Senghor fal nan ko 1963 fal ko 1968 fal ko 1973 fal ko 1978 président Senghor nag bi mu toogee ba nattaat boppam. ca la man damay bàyyi njiitu réew senegal te kenn forcé wu ko muy décembre 31 1980 ba mu wàccee nag dafa toog di bind ay taalifam rek am ca nag ay raaya yu kenn mënta lim lu mat fanweeri université ak ñett jox ko raaya bu ñu tuddee docteur honoris xam nga ne lii de mooy nit ku màgg Senghor nag bokkoon na ci ay kuréel yu mag yuñ tuddee académie bi ci njëkk mooy académie des sciences morales ak politique bi ci topp di académie des sciences bi ci topp académie des sciences des belles lettres arts de Bordeaux ak académie des sciences d'outre-mer te 1983 nag te 2 juin ca lañ ko def académicien mu dem académie française Léopold Sédar Senghor nag mi ngi génn àdduna ñaar fukki fan ci décembre atum ñaari junni ak benn di 2001 ca France ca Verson ñu denc ko fii ci Dakar keroog bi Senghor wàccee Abdou Diouf ko wuutu moom Abdou Diouf moom ma nga juddu juróom-ñaari fani septembre ca 1935 ca Louga ginnaaw bi mu jàngee ca Ndar école bi ñu tuddee Brière de Lille jógee fa dem ca école bu mag ba ñu tuddee Faidherbe bi ca Ndar mu amee fa baccalauréat 1955. ñëw Dakar nag ca université ba jàng fa njàngam mu mag mooma ba am fa licence ci lii ñu tuddee droit public di jàng yoon ak science politique di xaral ak nu ñuy téyeem réew 1958 Abdou Diouf nag dafa dem France. école nationale de France d'outre-mer foofa nag la mottalee am njàngam raw ñëpp nag 1960 jël pays ñibbisi bi mu ñibbisee Sénégal xoolal ma bii jaar-jaar nekk na adjoint secrétaire général gouvernement nekk na secrétaire général ministère de la défense nekk na gouverneur Sine Saloum Abdou Diouf nekk na directeur de cabinet ministre des affaires étrangères nekk na directeur de cabinet président de la république nekk secrétaire général présidence de la république Abdou Diouf dugg ci gouvernement bi 1968 nekk ca ministre du ba 1970 nag ca lañ ko def premier ministre benn fanu janvier 1981 Senghor 31 bu leen fàtte ne ca la wàccoon wàccee boppam te kenn forcé wu ko mu jël Abdou Diouf teg ko teg ko nag ci article 35 constitution bi Abdou Diouf nag jiite parti socialiste waaye élection présidentielle 1981 yi ca lañ ko joxaat réew mi mu dàbbaliwaat ko 1988 dàbbali ko 1993 génn nag ci nguur gi atum 2000 gannaaw ba mu jàkkaarloog Ablaye Wade Ablaye Wade daal di am ndam ci kawam Abdou Diouf ba mu fa jógee dafa dem ca tugal réew yi làkk tubaab yépp ñu jox ko seen kuréel mu jiite ko ba ay mandaam jeex mu wàcc tey mi ngi toog di xelal njiitu réew yi. ki ko daaneeloon nag mooy ab Ablaye Wade président Ablaye wadd mooy ñetteelu président wu Sénégal ma nga judd ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mai 1926 ca Kébémer Ablaye Wade doomi Kajoor la waaye ginnaaw bi mu jàngee njàngam mu njëkk ak njàngam mu diggu doomu ca Ndar. dafa dem ci école normale William Ponty bu Sébikotane bii fa la génnee 1947 am diplôme mu jàngalekat Abdoulaye Wade loolu doyu ko mu dem Paris ba mu demee Paris mu jàng fa lii di mathématique ca lycée Condorcet 1951 ba 52 waaye loolu doyu ko mu dem faculté des sciences dem faculté des lettres soog a nag dugg école libre de droit bu Besançon 1952 ba 1957 Abdoulaye Wade nag ca la amee doctorat ci droit am doctorat ci koom-koom science économique ca université Grenoble 1959. ca at mooma la ñibbi si Sénégal daal di nag bindu ca kuréelu avocat yi waaye boole ceeg di jàngale ca université de Dakar. 1970 nag moo am agrégation 1970 ba 71 moom sax moo nekkoon doyen de la faculté des droits ca université sciences économiques nga xam ne professeur la fa woon. ci wàllu politique Ablaye Wade ginnaaw bi mu bokkee woon Union Progressiste Sénégal du UPS bu Senghor dafa mujj a génn 1974 wut parti boppam tuddee ko PDS. ca parti booba nag la amee ndombal tànku député ci assemblée nationale ñeenti at gannaaw ba mu ko sosee. mu tudd nag candidat di soppi dem ca élection 78 ñu gañe ko mu ne duma bàyyi 83 ñu gagné ko mu ne du ma bàyyi 88 ñu gagné ko mu ne du ma bàyyi ñu gagné ko mu ne du ma bàyyi ndax loo fa xaarut du la fa fekk. ñu war a jàpp it ba 92 1995 ba 1997 moom moomu nekkoon na Ablaye Wade ministre d' état. ca wetu président de la république Abdou Diouf ginnaaw bi nu juboo ngir jàmmi réew mi kenn ku ne am ci cër cërub liggéey. waaye terewul 1er avril 2000 Ablaye Wade ñu def ko président de la république du Sénégal gannaaw ba amee ndam lu rëy ca kaw Abdou Diouf ndam loolu nag wane coppite gu njëkk ci parti bu wàcc beneen parti yëg ci Sénégal 2007 mu faluwaat président 2012 nag ca la wàcc ginnaaw bi Macky sàll président amee ndam ci kawam waaye Ablaye Wade ba léegi moo jiite partem ba léegi mi ngi politique président la boo xam ne fu mu toll mu ngi liggéey waaye bu leen fàtte ne ñeenti président laa leen waxoon ñeenteel bàyyi ki fi toog mooy Macky Sall président Macky Sall mi ngi juddu fukki fan ak benn ci décembre ci Fatick waaye bu leen fàtte ne doomi fuutal la ginnaaw bi mu jàngee Fatick njàngam mu njëkk dem Kaolack def fa njàngam mu dugg doomu ca la ñëwee université Dakar génn fa ak diplôme ingénieur nekk nag kuy gëstu li ci biir suuf muy géologue géophysicien waaye nag bi nga xamee ne institut bi ñu tuddee institut des sciences de la terre bu Dakar pare na fa dafa dem France nag àggale institut bi nga xam ne mooy gëstu pétrole fa la amee diplôme am bu mag ci wàllu politique. président Macky Sall nag ci wàllu politique mi ngi dooree àndu jëf 1970 ak at ya ca topp ba càgg mu génnee fa dem fekki Ablaye wadd président ca PDS 1980 ñu daal di koy dénk kuréel gi nga xam ne mooy CIS jiite woon borom lijaasa yu mag yi. ba nga xam ne atu 1990 jot na bi PDS amee nag njiitu réew mi 2000 te lañ ko def directeur général société bi di Petrosen yor pétrole bi mu jógee fa nag nekk ministre des mines de l'énergie et de l'hydraulique 2001 ba 2003 jógee fa yor ministère de l'intérieur et des collectivités locales 2003 ba 2004 ñu daal di koy nag fal premier ministre 2004 waaye ginnaaw élection yi ca topp mu jiite woon législative yi ca liste ba ca lañ ko fal nag président assemblée nationale 2007. ca at mooma nag ay jafe-jafe am ci digganteem ak président lay Wade mu daal di samp partem APR ñetti at ginnaaw bi mu delloon doom bay tànk yi ko jox yépp mu jàkkaarloog ki ko jàngal politique président Ablaye Wade 2012 am ndam ca kawam yor réew mi nag ba 2019 mu laajaat ko ñu jox ko ko ginnaaw bi mu jaaree ci référendum kon nag mën nañoo jàpp ne ñeenti président yi. ñoom ñoo jaar ci Sénégal gone yi ngeen war koo xam ñii ñoo jiite réewum Sénégal kon mbokk yi fii la sunu waxtaan wi yam tey di leen gërëm di leen sant di leen delloo seeni nopp di jëlaat sunu làmmiñ di leen jox daje ci fan yi xam sa sa tey di waxtaan wu leen Goethe Institut may ànd ci ak archive nationale du Sénégal ak it Kër Leyti maison de l'oralité et du patrimoine direction artistique ak présentation Massamba Gueye assistant Abou Soumaré régie technique la Factory bu Ousmane Faye ci xarala gi Roland Sagna coordonnatrice Bouye Fall Institut